waaw koo yaakaar si àdduna yàlla la yaakaar yàlla mi ñu yaakaar ñun ñoo yaakaar yàlla yàlla nañu yàlla may ndam boobu ci Sénégal li may def nii defoo ko pour dara dama koy def ah pour Sénégal ñu kontaan parce que li may def man kenn fayu ma dara dëgg la moom laa li may def sama ñaq laay génn di ko def bu ko ñëpp doon def Sénégal Sénégal lu mu xëccoo da koy jël mais tey ngay jël sa ñàkk di génne di ñaanal sa réew mu am ndam am na toog sa réew di la pour ñaanal sa réew pour ay noon toog di la xeex pour nga am defet pour lan mais yàlla kese moo fi nekk yàlla kese moo fi nekk barki Serigne Fallou Mbacké billaay wallaay talaay Karamba du manti mel dafa gëm yàlla man damaa gëm yàlla damaa gëm yàlla xam li yàlla capable moo tax aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal yàlla nañu yàlla may ndam si barke Alaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Alaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Alaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Alaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Alaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Alaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Alaaji Fàllu Mbàkke jërëjëf yàlla suñu borom amiin amiin amiin ah, daa soxo daa soxo andin ko kana va ta soxo ta soxo anin ko taxal jël taxal jël bu dem taxal jël sans bi waaw borom bi yaay noonu de grand waaw waaw maaraabu équipe nationale maaraabu équipe nationale ki nga xam ne moo mu ngi noonu Karamba daa soxo maaraabu équipe nationale nga xam ne moo sonn ci équipe nationale sans dara ndax bëgg réewam kii la président war a séntu kii la war a bàyyi xel bu baax a baax kii moo bëgg réewam. Karamba Dazoxo Dazoxo andi ko Karamba mu ngi noonu ci saraxe li nga xam ne mooy saraxe ndox yi amoo lépp ndoxam la moom lépp ndox la mu ngi noonu benn oto baa ngi noonu ndeysaan

kenn amul leneen kenn mu daanu amul leneen ñu ngi bëgg a dégg yal nañu yàlla suturaal may ñu ndam bu sedd guy si barke alxuraan na Sénégalais yi xàccandoo dóorandoo yéenante jàmm bañ a ñaanante bañ a soxorante Sénégal suñu Sénégal la yal nañu yàlla may ndam si barke alxuraan si barke Serigne Babacar si mooy yaakaar ñaanal yàlla pour Sénégal may ko parce que Serigne Sénégal yëpp dañoo dañoo jóg pour xeex ma pour jox Sénégal defar ñaanal leen ma yàlla mën na ko ñaanal leen ma ñaanal leen ma rek barke Serigne Ba affaire la. coow li coow la. waaw ak Papa. waaye Sénégal yàlla may ko. non da sa xaar leen xaar leen xale la wax dëgg nank rek xaaral. hey bul bul ma bu oh leen jëfee dafa nank. booy jàng moo tax dafa leen nank. dafa leen nank. kilifa gi. kilifa wul gi ngi ni kàddu wul. maa ngi ko fas yéene yéene saraxe pour ngeen ñaanal Sénégal pour yàlla kon kon nag am bàyyil bàyyil bàyyil booy xaaral moom rek. xaaral koy na grand kon na ñëw wala. la ko jox mais Amir. weccet ñaari biir mille franc la. ñaari biir mille franc ko yor. ñaari biir ko yoru ma ko. waaw weccet ko. bilaay. Aca bu bees tàq par force. Waaw. bëgg dama yàlla may ko ndam gis ma ko bëgg ndamu doon an tant que sénégalais di ñaan pour sama réew am ndam parce que naxaatekat yëpp dañoo toog pour xeex suñu réew voilà waaye bi booy sarax bi Assane ah, billaahi yàlla nañu ko yàlla mayaat rek rabbi. booy sama sarax sama sarax du ko du ko que li def suñu sarax laa koy dalal rek dégg nga ok. onze onze mille cinq cent usal booy onze mille andi mbuus andi mbuus aw ma. gën a seen mburu mu gaaw. a seen mburu mu gaaw. bu ma sonal fii nag dégg nga ah. xaaral tuuti grand dama ci liggéey am liggéey bu ñu pare. dama dama te yàqaloo ko dara mu gaaw bu rëy waaw. Thank you. Voilà Dansokho. Dansokho Andinko. Le maire Cissé Diné, le roi du ballon. nga xam ne. bu ñu bëgg jàll te nekkuñ ci loolu. da ngay bàyyi ba pare ah. Traoré. Le merci. kii la réew mi ñor kii dañ war a bàyyi xel barki Serigne Touba le marabout du peuple mu ngi nii nga xam ne Sénégal moo ko ñor jël alalam jël alalam yëpp di ko Sénégal am ndam. mënuma dara de mais yàlla man na damay ñaan yàlla pour yàlla may Sénégal ndam bu set wécc man si ma yàlla may laay ñaan yàlla jël yàlla dénk samay loxo xool yàlla ba résultat lay joxe tey di day wallaay tallaay day wallaay tallaay de merci merci yal yàlla may ndam merci merci le roi du ballon Karamba le marabout de du peuple. Merci. Le roi du peuple.

dañ dara koy rek nañ taxaw rang leen bu leen njëkkante bu jaar ak moom jaar ak ginnaaw Thank you. yàlla yàlla ko fini wallaahi qui fait la révélation. waaw wàccal sa loxo ba mu pare wàccal sa loxo ba mu pare wàccal sa loxo ba mu pare ba jël ba pare waay dañuy jël ba pare dañuy jël. lii lay jëlee coupe bi ci kattan yàlla. yàlla na yàlla amiin tey talaata bi yal na ko yàlla dafa dafa sëñ Bamba amiin ak sëñ Fallu te yoon bi de yal na la doon yoon jub la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam merci tama yégal tama yégal tama yégal Messi. Fighting! jóge leen porte bi. Karamba day nit Karamba day nit Karamba fàttali nit yow Karamba fàttali nit yow Karamba xaaral ñu ñëw fii fàcc na leen fàcc fàcc waxoon na ko du suba fàcc fàcc fàcc fàcc fàcc fàcc fàcc fàcc dem yaa gore barki Seydina Mouhamed yaa gore yaa man li ngay def yaa gëm sa bopp doo nit barki alquran karim yàlla la yàlla fay yaa bëgg na réew yaa bëgg Macky Sall yaa bëgg premier ministre Karamba yàlla la yàlla sagal ni nga sagalee Sénégal yàlla ko yàlla sagalee waaw dem leen seetaan match bi billahi ne leen faj faj faj faj dañuy dugal la dugalaat mu dugalaat parce que loolu moom. dégg nga. déglu la ngeen taal kër gi

Fuente! mooy Koulibaly Lass. waaw sant nit boo njëkk a yëg bii bi waaye. billahi billahi Lamine Bar Lamine le Messi le Messi le gentleman du peuple billahi le Jordan Boy ñaari bal yaa ngi nii ñaari bi yaa ngi noonu keroog ñëpp keroog ñëpp ñëpp a ngi woote ñëpp a ngi woote ñaari biir ñaari biir la mu ngi ne ñaari biir keroog trois biir la ne te ñaari biir mu ngi noonu billahi doo seen morom kenn yow ku mon sëriñ yëpp dañu ruuxoon contre sëriñ yëpp dañoo dégg ak seen responsable dégg ndayam Karamba mooy seen bay di baloo Karamba la Karamba la waaw di baloo Karamba la yaa seen bay bañ dëgg yaa seen bay dansons yow jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. jërëjëf yàlla suñu borom. yaa fi nekk yaa fi